jox njaago drapeau ñëw na jox Siteu drapeau bi. ginnaaw bu mu daanee ardu dem. waaye ne xam na ne diggante Liss Ndiago ak Siteu ku xam na ne diggante Liss Ndiago Laurent njaago ak Siteu ñoom topp ñu kenn yalmin bi lañuy ñu topp muy boroom dëkk bi muy seen kilifa muy seen lépp jàppale leen si journée bu ne lu ñu am. Siteu jàppale ne lu leen lu ñu nekkul lu ne guddeeg bëccëg suba ngoon Siteu taxaw na ci kon ñoom euh, liis Ndiago daan na démb ñëw tey indil magam xaritam ujalam euh, muy Siteu pour jox ko drapeau bi Siteu balaa ñu la jox kàddu gi dañuy nuyu monsieur le maire monsieur le maire li xale bi def liis Ndiago. waa tey lii mu def nii avant tout dañ koy féliciter di ko ñaanal yàlla ko ndam li jig moog Laurent tey li ñu def nii yaakaar naa ne képp ku deretu jàmm gën daw seeram tey kontaan nga. lii ñu def tey daan xëy indil Siteu drapeau bi dañ ciy kontaan di leen ñaanal ñoom sportifu Diamaguène yëpp yàlla na leen yàlla dimbali li ñu soxla ci dëkk bi ñu ñu ko fi muy roi des arènes di leen ko ñaanal ndam li yàlla ko dig Siteu tamit comme li ñu koy waxee moom mooy porteur de voix bi yaakaar naa ne ci point de presse lañ jógee léegi xool yëpp tooy kon bu ñu jugaatee ci li ñëw c'est la kii gañ may ñaan yàlla mu sol leen ci cat mu sol leen ci saytaane ba fi ñu bëgg a yóbbu turu jàmm yóbbu ko fa ndax ñoom leen rek la ñuy xaar si ñoom li yeneen autorités di def ci dëkk bi ñun amuñu ko ay mbër lañ am yàlla dimbali leen ñu siiw tey bu yàlla defee fi ñu egg ñu jëm fa muy liis muy sita muy Laurent muy keneen ak keneen képp kuy mbër ñun li ñuy ñaan yàlla mooy nga dem bay def ay social yu ngand au niveau de Diamaguène comme ni ko waxee sànq population soxla nañ ko te population bi jox leen bopp kon liis ñu koy ñaanal mook Laurent ndam li ñu jugee yàlla leen jik di ñaanal Siteu yàlla suñu borom may ko combat di ñaanal ñëpp daal encore une fois di wax ni képp kuy doomu Diamaguène tey kontaan nga waaw Siteu sa si may may ñëw mag laa damay dem damaa ngi bëgg a gaanu Siteu mii maa ko mhm. ñoom naa pa may sa ñaanal ma ma doon mbër ma ne ko di nga ma doon mbër di nga ma sa daan maay bàyyi Saliou Mbaye ak Makumba kon lii bu ndikkee ñuy koy waxal lu baax te ba ma koy xam yàgg na mag laa mënatumaa dem waaye il faut ma soox ñëw fii ci Siteu lu muy def da ciy booleeg sama njaboot Saliou Mbaye maay baayam Makumba Mbaye maay baayam Cheikh Mbaye maay baayam mm. kon bu ñu dëkkee ci dëkk bii muy def lu baax di xale bu baax mm. bëgg li muy def gëm ko yàlla na nga ci am dam ndam yàlla boo daanooti maa ngi lay ñaan ci kattanu yàlla ak yonte bi Serigne Touba ak maam Seera Fall képp ko àndal yàlla na ci yàlla def barke seen ànd bi yàlla na yàgg waaye bu ñu defee li ma dinaa soox ñëw mënatuma ko bu doon keneen du ma tax a jug lii may wax it xam na ko te du ma waxantu lu dul dëgg mi ngi nii di ma dégg daa Pape Maysa ñaanal ma ma doon mbër ma ne ko di nga mas a doon mbër di nga mas a daan am na wala amul man du ma waxal lu amul du ma waxul te jàmm gën gi yàgg naa fi. 1964 laa fi toog si. bi ñuy jaay kër yi 47000 francs fi la ma fekk. bi ñuy jaay kër yi 47000 francs fi la ma fekk. ñetti quartier yi ñoo fi nekkoon. Mbay Aw Xaali Njaay Jaksa Waalo. Jaksa Waalo Aline Gaye moo des mag. moo daan dawal fas wi ñu koy wër di ko topp mu sol mbaxane mu xonk yoru fas ñu topp ci muy Jaksa Waalo quartier Mbay Aw moo sant dëkk bi. xaali Ndiaye ñetti quartier yi fi ne kon maa ngi fiy bëgg a yàq waaye li ma tax a jug Siteu mu baax mi ñëw ba sama kër nag fekk ma fa teral ma hmm, jox ma lu bari ànd ak samay waa kër kon bu ñuy ñëwee di wax dinaa soox ñëw loolu doo maa ne wa salaam. ñoo ngi ñëw. toogal ci siège bi mu ñëw. Euh, kon mbokk yi dañuy jël kàddu gi dañuy dañuy jël kàddu gi gaay ah. Siteu pusil non fii baax na sita sita say rakk la seet si muy Liis njaago ak Laurent njaago say rakk say xarit tey seet si la indil la drapeau bi en tant que ambassadeur. waaw loolu de lu ma rafetlu la. waaw yaakaar naa li ma wax. waaw yaakaar naa li ma wax tamit xëy na dafa bari moo tax sax mënatuma wax lu bari mais ñii samay deret lañ kii man maa ko a bëgg. ki bu muy nekk xale bu ndaw la sama photo nekk photo am Papa Séré sama benn rax moo taf benn photo nekk sama nekk bu muy bëre mbapat wale mbapat kon lii bu amaatee yow ñu dañu am yaakaar rek eh, man dama bëgg ñu nekk ay junniy Siteu ñii waaw di koy wax ni kontaan naa moom ak moom ak Laurent bii. parce que ñoom laa ñaar laa mën a cité. Mhm. ñoom ñaar ñoo nekk mbëri nekk ay mbëri te man njaago yi dama ak ñoom loo xamante ne. man mhm. su may bëree maire dañuy def lu nekk. ñu dem ba Guinée damay demal foofu. kon ñii bu ñu ñëwee judduwaat si kër googu ñoom nekk ay champion kon damay kontaan di leen wax ne nañ continuer seen entraînement di leen wax ne ñii. li ma doon wax sànq firnde bi mu ngi firnde bi ñaari booy mhm. ñaari booy yaa ngi dégg seen communication. dana naa la seen kër amul sax robinet. robinet amul foofu. mais bu ñu bëggee sangu wala bu ñu bëggee utiliser ndox seen yaay dañuy rooti. Mm-hmm. mais xoolal booy te ay champion lañ dañoo siw te lu tax loolu mënul ne loolu kañ lay deñ question boobu laay laaj ñi dañ leen war a jàppale. ñi suñuy dara lañ ñi ñun lañ war a jege. ñu waruñu am bis rek ñu jàppale leen may leen xaalis noonu ñun dañ leen war jàppale leen woon yoon bi mm-hmm. leen woon dem leen entraîné ji def leen lii def leen lii def leen lii te incha allah wallaahi xanaa ñu xanaa ma bañ leen a gis mais ñii bu mu leen di gis dañ may gënal sax sama bopp loolu laay wax ay champion la ñu doon am naa si yaakaar yoon bi ñu jël ni ak ñeneen ñu dul ñoom parce que ñoom ñu ngi fi ak yeneen booy jàmm gën ay jillee caatu fora sera et sera jolof kon waaw nii ñu ko jàppoon nii dañoo war am ndam chaque jour chaque jour te yàlla bi ko mën yàlla na la ko defal waaw di lay wax Liss Laurent continuer leen yoon bi ngeen jàpp waaw ñun ñoo seen ginnaaw saa waaw loolu am loo xamante ne lu may firnde di ko wax sama deret lañ ko waaw euh, euh, Liss. Liss kon lu ko waxee nii rek. Mm. waaw moom suñu mag la. waaw avant tamit xam na ko waa ñun xam nañ mm. maanaam démb la ko waa avant tam moom suñu mag la woon démb. Mm. waaw kon maanaam ñun nu ñu def suñu mag rek. waaw noonu lañ ko def ak tamit yeneen grand si yu fi nekk. avant tamit maanaam di wax nit ne ñu bàyyi ko waa. waaw nañu bàyyi bu baax a baax. sa digganteeg seen mag. waaw nit ñi nañu bàyyi nañ ci génn. Mm-hmm. waaw parce que lu ma la si open press rek. Mm-hmm. kii maanaam ñun bu ñu gisee dara loo xam dañ ko solo si moom. barki alxuraan ko bi ñu ko tàggu dañuy ñëw jël ko dem. waaw maanaam a mm-hmm. ku xamul la xamul quoi. voilà te tamit luy defar moo gën luy yàq quoi. waaw kii suñu mag la. waaw moom bu xamee bu xamul. bu nit ñi xamee tam wala bu ko xamul. waaw Hmm. nañu bàyyi quoi. Ah. li li ñu jaaxal mooy sànq si li muy génne kàddu seede ci yow newoo fi. dañ ko laajal sa produit la. Hmm. ñoom sumay produit la te suma son ñu raw ma ci làmb. yàlla indi seede parce que wax dëgg day ànd dëgg day ànd ak seede. day ànd ak seede mënuñu woon a def ba njibi te loolu. yàlla du ko indi te yàlla du ko def dëgg day ànd seede. Hmm. nga daw dikk ñu wàññeekuwaat. loolu ma la woon kon si diggante si te est-ce que war ngeen cee déglu nit ñi. waaw pour wan la maanaam moom mi bu bëggee bu bëggee gis boppam bu bëggee gis boppam liis lay seetaan quoi yaa ngi dégg waaw kon maanaam maag moom maanaam ay takkandeer rek yaa ngi dégg waaw amaan tamit jàmm gën fii waaw suñu buñu dee tey ba ñuy dégg maanaam turu jàmm gën feneen ak feneen ginnaaw yàlla moom la mm. waaw maanaam ba muy tax di ko lijjanti amaan tamit ñun sax ñun ñu ngi nelaw Mhm. bu ñu ñëwee toog si ay tànkam rek mhm. parce que mooy mag day mhm. wane moom bu maanaam bu bu buggee gis boppam day seetaan lii waaw bu ma rombee bay fubal damay daw laaxatu kan Siteu waaw bu la rombee ngay fubal ngay laaxatu muy ñëw damay daw laaxatu ba mu romb doo génn parce que bu ma fekkee far damay dàq yi ñëw demal entraînement yi ndeysaan ah, ah, Laurent Laurent tey sa teewaay fii si sa kanamu mag si sa kanam monsieur le maire tey seen seen digganteeg Siteu coow li bari woon na waaye gis nga moom mooy borom dëkk bi yàlla def na loolu mooy borom dëkk bi ngeen nangul ko ko ba pare topp ci ginnaawam. li nit ñi di wax nit ñi yëgoo ko waxu nit ñi. moo ma li Fallou wax rek Siteu suñ li mu doon suñu borom wax ngeen nangu te moom it bu koy partagé bu ñu ko war a partagé mhm. sànq boo gisee sànq nga wax ba jooloo nit ñi mhm. mooy nee naa sànq ma ba bérifli rek mooy Siteu dina lakk ñu bari billah parce que ku xamul xam te sa xol man awma mbër man faralu ma dool doo sama mbër mais xam nga lu tax ma bëgg la xol bi ko yor la jàll dinkul ñu bari te man nit xol laa koy jàppee boo doon jor ay milliards di ko lekk yow kese awma ci soxla musuma la ñaan musuma la woo mais xol bi ko moo yomb ci yàlla mu def ko ci doomu aadama damay ñaan fi nga bëgg a yegg nga yegg fa te di nga fa yegg incha allahu waaye tey lii tey lii def waaye lépp tey dikk ànd ak yow jëm si ki nga xam ne moom mooy Siteu loo ci yëg. non daa def li nga war barki allah ji fa eh, maanaam kii suñ deret la sonn na si ñun lu ngeen yëgul lu ngeen fekkeewul hmm. billaay walaay taalaay ndax pag daa jot ay ngala yee liis mi daa doo yendu ay saaku samalu yëpp bu ñu walee ba pare wala ñu wala jëli gerte ay fee mus nañ dajeeg moom moom lu ma yoon moom du ko fàttali ko sax moo ñu yendul saaku bi barki alxuraanu karim jamono yooyu ñoom ñu doole bu ñu dee saaku bi sax billaay lebal lu baax rek kii lu ñu defaral ñu duñ ko fàtte waaw man sama premier combat ay bolo sama premier combat arène mooma ay bolok waaw noonu la am combat woo ko pour mu may ma contact. billaay walaay taalaay Siteu waaw pour mu wan contact. dañuy déggante chaque bi mu a wax suba damay dem mo moom ba mu daggee tigga ñëw mu daggee tigga hmm. waaw yaa ngi dégg voilà di la wax ni maanaam bis waaw kooku maanaam waaw kooku defal la lépp waaw mu ma la rek ay deret lañ. waaw man bu ma yëngu fee même bu fa maanaam même bu ñëwul sax xel mu ngi foofu tamit deret bi lay circulé. barki alxuraanu karim. billaay moom bu ñëwee bu ñëwee bu ñëwuloon sax man xam naa lépp. waaw ah, yi. gaa lu leen neex non xaw ma ndax ay seetaane leen neex la ñuy bind ko waa seen téléphone la yor ñoom waa ñoom la neex ñoom. waa kenn moomu leen. yee mun nañ bind lu leen neex. léegi kenn kay seetaan naan ah comme nii la demee billaay walaay taalaay. c'est que dañuy kontaan ma dañuy mbëkkante lu neex. yaa ngi moom. moo mën làmb mais dañuy bëre daf may daan set ma daan ko deux. xam naa ne ci biir bës naa ko daan set mu daan ma cinq. loolu du dara. billaay ko sa digganteeg monsieur le maire sa digganteeg Pape Gueye. waaw di bëri përëb tootam di nuyu monsieur le maire Pape Gueye bu baax. waaw gis nañ soutien yu mu def defal ñu ay t-shirt jëndal ñu ay amulor leneen leneen ay ngi koy sant baax ak képp kuy jàppale ñu si njaago waaw tamit di sant àdduna waaw di nuyu ñëpp di bëggee waa jàmm gën bu baax di wax ni tamit jàmm gën bëri na ay jeunesse yu fi xam ne matu waaje am nañ talent waaw nañ leen fan la maanaam man lamb bu weesoo waa jàmm gën ñëpp laay bëreel waa jàmm gën seul laa fi bàyyi cent pour cent jàmm gën maanaam man si Modou Lo roi des arènes laa teg si mbër. Farel. mu nekkee ci combat moom da koo tëb. Mhm. Mhm. na peggal mhm. daan bëri moom daanu na man daanu naa. dafa da dafa daanu man ma daan yaa ngi dégg. maanaam pour wan ni ko maanaam man tegu ma ko bëri wala xool ma ko du ma ko di ko pour ma wala saa yooyu noonu. parce que def lu ma deful tamit neexul jàmbaar tamit ba xamul wax bëgg ñoo nekk loolu noonu. Zarko mi ko daan waaw Zarko na ñoo ngi bëri man ak moom walla waaw moom doomu baay waa jaam nga laa baay bu waa jaamu gën man jaamu gën kese ma ñor barki alxuraanu karim waaw jaamu pour wane la ko waaw Zarko laay xool quoi parce que Arafat daa daanu quoi waaw man jaamu gën kese ma ñor barki Seydina Mohamed jaamu gën kese seul moo ma ñor waaw leneen lu dul jaamu gën xooluma loolu yaa ngi dégg yow ku koy bëreel. non soxlawu ma ko. naa bëri pa. Tapha Gueye numéro a soxla woo. billaay wallaay bëgguma. aw ma xolu door ko quoi kenn du dóor mag. non baax na man daal ñu ma war a bëreel naa xam naa leen ñu xam. naa kon la rek waaw. Siteu looy. kii moom. kii dafay lu ko neex la. yéenay contact lu ko saf lay def moom. kii yàlla moo ko toppewul dara. kii lu mu def pour moom noonu la. baa yàlla la waaw baa yàlla la quoi. Eh. yàlla na leen yàlla daal jàppale. doole leen moom ak xale yi nekk biir jàmm parce que suba ay champion la ñuy doon instant bii nii man li ma leen di wax mooy nañ gën a bësaat nekkaat seen entraînement. xam ne li nekk seen kanam moo daax. waaw te yàlla la lépp nekk ndam. jërë